salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Ousmane Ndiaye nekk membre parti bi di Alliance pour la République muy APR nekk responsable des jeunes du de la COJER foofu ci commune u Grand Yoff nekk tamit responsable COJER euh, au niveau de Dakar nekk secretaire général COJER au niveau national euh, Ousmane ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi waaw euh, maa lay fay euh, monsieur kande di la nuyu di nuyu aussi euh, en tout cas toute la structure Sénégal di leen féliciter à travers cette occasion si liggéey bu mucc ay bi ngeen di def si lendemain médiatique bi di aussi nuyu sénégalais yëpp di nuyu aussi les auditeurs et les téléspectateurs de Sénégal di nuyu aussi tous les camarades de parti et toute la population sénégalaise. Ousmane ko wax élection wax l'implication des jeunes et des femmes les jeunes particulièrement yéen yéen la ñuy xaar massification yéen la ñuy xaar ci mobilisation yow nga dëkk ci commune boo xam ne c'est une commune avec un enjeu important dans le cadre de la tenue de ces élections locales de de de janvier 2022 euh, muy commune u Grand Yoff commune u Grand Yoff APR defe naa mosu fa gagné bu ñu ñëwee au pouvoir ba léegi euh, comment est-ce que vous êtes en train de préparer réellement élection yooyu waaw waaw tout naturellement comme nuñ ko yàgg euh, préparé tant plus que nous sommes des jeunes qui se sont très tôt engagés dans la politique et aussi auprès du président de la République à travers l'Alliance pour la République. Mmh, nga ci wolof donc tey euh, taxawaay bu ñu yàgg am si échéance yi mujj yi taxawaay boobu naturellement la ñu la am au niveau de Grand Yoff de préciser que ñun dañu jàpp ne te dañu gëm ne de 2014 à aujourd'hui wala de 2009 donc euh, ñu ngi au niveau du pouvoir au plan. le national mais au niveau locale mooy si gox bi en tout cas nous sommes à l'opposition parce que maire bi jiitewuñu ko ay ndaw Khalifa Sall fa mhm. donc si taxawaay boobu la ñu yàgg am teg suñu bët si maire bi tant plus que jàpp nañ ne à travers les politiques publiques yoo xam ne le président de la République mu ngi koy mettre en œuvre depuis 2012 et aussi profil yoo xamante ne suñu partie am na ko si gox bi ñu jàpp ne ñun on a les meilleurs profils pour que bu ñu jëlee mairie bi ñu mën a yóbbu Grand Yoff ñu mën a changer xar kanamu Grand Yoff tant plus que ñëpp xam nañ ne Grand Yoff de 96 bi ñu ko érigé en tout cas euh, commune d'arrondissement ba tey amul lenn boo loo xamante ne am na fa changement majeur ci commune bi donc il est temps raison pour la laquelle looloo waral aussi suñu engagement mais aussi looloo waral aussi ñu taxaw aussi ànd avec euh, en tout cas tout le tout le parti au niveau local am taxawaay nekk sur terrain yàgg nag parce que mu ñu musuñu jóg ci terrain c'est ça aussi un peu aussi euh, un peu la, particularité de la jeunesse républicaine de Grand Yoff donc euh, si lépp si inscription si période Covid si lépp ñuy taxaw di def ay activité di def aussi ku nekk aussi au niveau de ta zone de ton quartier parce que aussi politique mu am na peut-être il peut y avoir aussi des des activités ou des des initiatives communes. Mm-hmm. mais aussi il peut y avoir des initiatives individuelles sama sama sama muy Arafat au de la COJER am naa relation ak ndaw ñoo bokk ñooy ñooy toog chaque jour di leen sensibiliser di leen jàppale si loo xamante ne war nañ ko mën si côté ouverture si côté jàng si côté encadrement académique loolu yëpp aussi ay mbir la yoo xamante ne ñu ngi koy def pour gën a jege suñu askan gën a jege jeunesse su Grand Yoff pour que aussi incha allah rabi au soir du 23 janvier que ñu mën a en tout cas jëlee ma si mairie boppu mairie bi ñu fa ne ñoo xamante ne de 2009 à aujourd'hui vraiment euh, ñu ngi dugal euh, Grand Yoff si guuta Grand Yoff ñuy si boo xamante ne ba léegi jógee fa. d'accord Grand Yoff am nañu leader bu mel ni Khalifa Sall ah euh, euh, mu nekk quand même nit koo xam ne ñëpp xam nañ ne ku am présence la euh, Grand Yoff ki nga xam ne boobu ba tey mu ngi ci xolu waa Grand Yoff ci ban paramètre wala ban méthode de de de communication wala sax de campagne ngeen fas yéene teg pour mën ko récupérer ci loxo Khalifa Sall. waaw Grand Yoff c'est vrai que tey. boo waxee Grand Yoff si histoire politique. sa xel dem ci si mënoo si génnee non sa xel du dem si Khalifa Sall mais mënoo si génnee Khalifa Sall. Hmm. d'accord ma sa xel day dem si xalifa Sall parce que tey am na tey une révolution au plan du leadership politique. loo hmm. xamante ne ñëpp nangu nañ ko. aujourd'hui at l'alliance de la République regorge des responsables politiques des leaders politiques yoo xamante ne ils se sont affirmés sur le terrain à Grand Yoff ba tey foo tourner si Grand Yoff ñu tudd seen loolu am na c'est pas lui seul qui incarne le leadership politique. Ouais. mais am na mais kenn mënu ko am na si dindi. moo fa nekk loolu parce que aussi bu ñuy waxtaan. peut-être yi a firndeel loolu. mais mais ba léegi Khalifa Sall moo fa nekk. quand même non parce que aussi peut-être di ñëw. maa ngi ñëw maa ngi mhm. ñëw parce que aussi dañuy waxtaan bu ñuy waxtaan aussi man lépp loo xamante ne aussi actif actif nit la duma ko ko bañal. nit moom bu bañal nit ki lu mu doon. ok mënu ma nekk ndaw politique. Khalifa Sall ak parcours élogieux bu mu am si politique. Mhm. ma koy bañal lu mu représenté Grand Yoff. amul benn problème moom c' un homme élégant en politique. loolu yëpp mhm. xam nañ ko donc mais aussi tey leadership bi. il faut qu'on accepte que le leadership politique à Grand Yoff toxu et le leadership est partagé non tox bu toxul mën mënagul toxu insha allahu rabi si kattanu yàlla au soir du janvier lay toxu carrément mais tey le leadership est partagé parce que tey Macky Sall le président de la République mhm. am na ay ndaw yoo xamante ne au niveau de Grand Yoff ñu ko fay représenter des répondants liggéey nañu am nañu taxawaay ba tey jii ñoom aussi ñi am leadership bu tax tey Khalifa Sall bu ñu demee des fois ñu koy gagné donc mhm. am nay élection yoo xamante ni il nous a battu am yoo xamante ne on l'a battu donc tey leadership bi mënuñu ne que le leadership est contrôlé par une seule personne mais le leadership est partagé tey kenn mënta taxaw ne Grand Yoff maa ko à 100 pour cent parce que dañuy gagné di perte am na élection élection présidentielle il a eu un candidat on l'a battu le référendum fii il a battu campagne il a fait les maisons porte à porte porter le nom au niveau ñëpp xam nañ ko on l'a battu à ak yeneen moom it am na yoo xam ne gagné na. ngeen ma jàpp ne tey ma jàpp ne tey. à mhm. travers les choix les mauvais choix. Mhm. qu'il a opéré en 2014 avec Pape Momar Mbaye. Mhm. avec Madiop Diop en 2009 avec Pape Momar ma jàpp ne tey Grand Yoff waay à travers en tout cas retour ñi ñuy am si population bi parce que ñun ay ndaw lañu chaque jour nous sommes à la au contact avec les jeunes nous sommes au contact avec les populations xam nañ ne tey Grand Yoff waay vraiment pare nañu. ci si genre choix yi soxla nañu changement à la de la mairie. soxla nañ changement aussi au niveau de la scène politique. ak mm-hmm. Khalifa Sall ñëw na mais am na doole dooley yi Askan Wi est-ce que jàppal nga ne mbir mi dina yomb ci élection yi di ñem mooy en en janvier 2022. waaw euh, ndax mbir mi dina yomb wala du yomb élection dafa am ñu koy décider c'est-à-dire les hommes politiques les acteurs politiques lu ñu mën a def mooy dem investir dem teg seen liste am programme ñëw présenter ko askan wi donc c'est la population léegi. que revient en tout cas ce privilège de choisir ñu leen di jiite te lu ma gëm tey mooy Grand Yoff changement bi soxla nañ ko Grand Yoff tey tàyyi nañu que à chaque fois ñi jox xalifa Sall chance mu tayle commune Grand Yoff parce que noonu laa ko mën a waxee c'est-à-dire Grand Yoff jox nañ ko chance 2014 aussi joxaat nañ ko chance mais à chaque fois lu ñuy gis mooy soit hasardeux lay def par rapport au profil du maire de Grand Yoff. Mm-hmm. de 96 à aujourd'hui tey. Grand Yoff est à la recherche de son bon profil du meilleur profil pour pour la mairie de Grand Yoff ba nii amaguñu le le le bon profil te ma jàpp ne tey le président de la République Macky la famille politique du président de la République am na tey ay talent am na tey ay leaders ay jeune yoo ay ay ay responsables yoo xamante ne travers leur profil à travers leur cursus à travers seen taxawaay si commune bi. comme boobu ba léegi mais. tous les responsables de la Comme parce que par que le leadership nous savions tous qu'aujourd'hui mm. que le leadership politique de la mouvance présidentielle moo le leadership politique de la mouvance présidentielle au niveau de Grand Yoff est incarné par les leaders de la paire c'est ça c'est le problème déjà que vous avez à Grand Yoff vous avez plusieurs euh, un qui porte plusieurs têtes Euh, njiit yi responsable yi dañoo bëri ñoom seen biir jubawuñu comment déjà comptez-vous ngeen régler problème boobu pour mën a jaamarloo ak opposition bi nga xam ne am nañu fa léegi Pastef am fa taxawu Ndakaaru am fa yeneen parti yi non kan de xam nga cest à dafa am loo xamante ne aussi il faut ñi koy nangu quand on est un observateur euh, un, un bon observateur en politique hmm. élection lañ jëm c'est tout à fait naturel vu en tout cas euh, aspect stratégique bu élection 2022 di am par rapport aux prochaines joutes par rapport aussi à l'avenir politique en 2024. Mm. Mm. c'est normal que mu aiguiser autant d'ambition. Oh, donc vous ñëw mm. tey booy wax nii day mel ni que ñun rek ñoo am problème. tey dégg tey Pastef Dakar quitté nañu dëmb def nañ communiqué ne dellu si waat nañ. non mais ñëw yaa fi toog mbirum APR ñëw raison pour laquelle peut être sànq da ne non à Grand Yoff Yewwi Askan Wi Pastef nii di la wax ne rek problème yi fépp la am parce que c'est not c'est naturel c'est la politique le charme de la politique c'est l'ambition mm. donc c'est naturel que ku nekk taxaw ne am li nga bëgg c'est naturel que responsable yu ma la cité tey à Grand Yoff kenn ku nekk nga manifester de l'APR tey à Grand Yoff mm. tey nu mu métti métti quand on parle de xaal yàlla à Grand Yoff quand on parle de xaar yàlla à Grand Yoff xel yi dem si Adama Faye mm. tey quand on parle de la cité millionnaire xel yi day dem si Moussa Sané day dem aussi si benn dame bu brave muy Fatoumata Niamba tey quand on parle des nouvelles cités tey nga jël cité si euh, presse xel yi day dem si euh, tey euh, à la SICAP Urbam xel yi day dem si le DG chez Bakhoum mm-hmm. quand tu parles on parle de de de, de Cyprès si cité kii cité Cyprès xel yi day dem si El Karim Ndiaye. Mm-hmm. Daaru HLM Padois xel yi dem si Mora tey ce sont des responsables yoo xamante ne tey liggéey nañu ba am ancrage boobu tey boo waxee Jidda xel yi day dem si nuru ñaaw boo xamante ne ndaw la mais aussi am taxawaay aussi au niveau de sa commune donc tey l'alliance pour la république tey ñafe nañu tey ba à travers les les, les différents quartiers de Grand Yoff mu am mayage boo xamante ne am nañ ko taxaw nañ ko donc raison pour laquelle ma ne la c'est naturel que ñoom ñëpp aussi ku nekk bëgg dara mais ñëpp xam nañ ne ñun yàlla def na ni on a en tout cas un patron boo xamante ne. quand il décide euh, gëm nañ ko respecté nañ ko jox nañ ko aussi gëddëm incha allahu rabi ci kattan bu ci tolloo il va appeler tout le monde jox ñu son choix te jàpp naa ne le choix. bu joxee choix bi jàpp naa ne mënta gën si rang ab alliance pour la république parce que l' alliance pour la république c' est la locomotive de Benno Bokk Yaakaar au niveau de Grand Yoff l' alliance pour la république représente la force politique du président de la république à Grand Yoff. Mm-hmm. ok am na solo loolu déjà lu leer la xam naa ne président de la république kon moom moo leen di désigner. seen candidat euh, pour les élections locales de 23 janvier 2022 euh, beneen bi euh, boo boo jëlee lu mel ni bennoo kese kese kese kese kese seen biir comment est-ce que vous travaillez déjà yéen ak yeneen parti yi est-ce que déjà ya ngeen amal régulièrement des rencontres dans le cadre du bennoo wala fu mu toll nii parce que ñi nga fi cité yëpp waa APR rek la ñuy dégg waaw euh, c'est-à-dire ñu euh, ma cité yëpp waa APR ni ñuy dëgg c'est parce que aussi mooy lu ma la wax sànq aussi le poids politique aussi ñoo ñoo ko yor. ñoo ko yor c'est ça la réalité sur le terrain. Hmm. parce que tey man ndaw président de la République man le président de la République laa gëm jiite structure au niveau communal au niveau départemental et nekk secrétaire général national donc dépassé na fu may taxawee di jël ay position pour lu neex nit wala dara. Hmm. man lu arranger le président de la République Macky Sall ak sama parti laay xool. Mm. Parce que d'abord, quand on parle de Benno, d'abord, c'est l'Alliance pour la République. Le président de la République, il a eu 26% avec euh, euh, euh, euh Macky 2012, avant Benno di am. Ouais. Donc, lu ko lu am solo donc man si loolu laa taxawee. loolu aussi mm. taxul aussi que ñi bedd wala ñu manque respect ces vaillants alliés ñoo xamante ne am nañu taxawaay. au niveau de Grand Yoff au niveau national mais aussi ku nekk da nga war a xam loo peser ku nekk da nga war a xam loo yelloo ñi moytu aussi. di am ay prétentions ci politique. parce que Grand Yoff ñëpp xam nañu quelle est la sociologie politique de Grand Yoff en 2014 gis nañu lu xew man loolu laay moytu le président de la République mm. raison pour laquelle je dis ce qui est la réalité sur le terrain aujourd'hui les alliés nañu ñëw ànd ak les les les les les responsables pour la République comme ni ñu ko yàgg defee le président xool si à travers parmi les responsables de l'Alliance pour la République mu teg kenn mu nekk le porte-drapeau. allé euh, les alliés ànd si ñu teg liste boo xamante ni ça sera une liste cosmopolite. ñu mm. dem jëli maire bi. d'accord pour toi quel est le face à Mora face ak nga cité El Malick Gueye Cheikh Bakhoum rakku président Macky Sall wala sax keneen kii euh, pour yow kan mooy le bon choix. tey tey wax naa la ko sànq mënuma ñëw taxaw ne la sama kilifa c'est le président de la man président. kese mais président nga ko xelal kan. maa ngi ñëw président kese laay xool lu ko arrangé xooluma lu arrangé keneen. man lu xa arrangé le président de la République ak sama parti man loolu laay xool. Hmm. donc tey lu ma gëm mooy le poids et la force politique de Grand Yoff ñu ko détenir politiquement sur le terrain c' est les responsables de la alliance pour la République même si aussi am na ay alliés yoo xamante ne jot nañu woon dara tey ku mel ni Cheikh Tidiane Diatta tey c' est un allié. Hmm. tey élection 2014 il est parti seul. Hmm. mu am conseil Fatoumata Ndiamba guerrière la am na ñeneen ñeneen comprendre donc man ci loolu laa taxaw. mais tey mënuma taxaw ne la président na tànn kii président il connaît bien ses responsables tey ñu ma la sital nii ñëpp muy aadama Faye et puis je profite de cette occasion dëgg naa dëgg nañu ay mbir fan yëpp mais lu ma gëm ak lu ma jàpp mooy sa famille naturelle c'est l'alliance pour la république sa famille naturelle c'est Benno Bokk Yaakaar on a besoin de lui il a besoin de nous na ñëw fekk suñu ñu ñëpp ñi ànd comme ñu ko yàgg defee ñu dem jëli mairie bi le na ses responsables mm. am na les informations sur le terrain am na sondage yi il est le mieux placé pour xool à traverse ses responsables de l'Alliance pour la République kan moo war a nekk capitaine équipe bi ñun ñëpp ñu topp si alliés yëpp topp si ñu dem jëli maire bi incha allah. d'accord loolu am na solo au niveau de Dakar aussi nga nekk responsable jeune pour la région de euh, gis nañ ne déjà euh, Amadou Ba gën na ci beneen côté bi Abdoulaye Diouf Sarr moo it mu ngi xëccoo mairie wu Dakar ñoom ñëpp ñu nekk ay nit à côté tamit am na ñenn yi sew yoo xam ne xam nañ leen. ñoom it bëgg nañu Dakar mais bon du ma cité mais gis nañ tamit Mbaye Mbaye Niang ah je pense Mame Mbaye ah, Niang moom it nee na candidat la je ah. Ah, est-ce loolu déjà euh, du pose problème euh, ci biir APR pour euh, pour mairie bi di nga xam ne boobu tey yéen tamit mënoo leen fa yegg si non naturellement mënul nekk mënul nekk problème lu ma la tontoon sànq moom moo xewaat encore Dakar lu ma la tontoon sànq si grand Yoff laa lay tontuwaat Euh, au niveau de de Dakar wax naa la sànq ne la ñun on a on on rencontre comme président de la République man Ousmane Ndiaye man loolu laa gëm je suis un jeune du président de la République et au vu de mes responsabilités. mais mais Ousmane yow yow yaa nekk ci terrain bi. je pense que tu es plus. maa ngi ñëw non non danga may may tuuti ma leeral la man jàpp naa ne. ndaw ñi lu ñu nekk ci terrain bi di rencontrer leaders yi di rencontrer responsables yi dans les localités. moo gën a bëri ko président Macky Sall lu muy nekk ci terrain bi di rencontrer les militants parce que amul jot chaque jour muy nekk ci terrain bi mais ñàkkul ne yow gis nga loo xam ne jàpp nga ne kii moo baax ci Ndakaar nga wax ko président Macky Sall. raison pour laquelle je te dis tey bu ma waroon def loolu aussi. te maa ngi si. Hmm. du si rajo laa koy waxee du si place publique. ñun dañu doon ay jeunes yoo xamante ne nous respectons notre président de la République on a des cadres à peu yoo xamante ne tey sama xalaat directement si Grand Yoff ak Dakar hmm. am na bu ma ko mënul wax directement président am na ay canaux yoo xamante ne indirect yoo xam ne mu naa ko fa wax président dina ko jot hmm. mais encore une fois man lu ma gëm mooy intérêt président de la République ak sama parti laay xool parce que loolu laa gëm loolu laa gëm gëm naa ne tey bu demee ba des kenn koo xamante ne mooy des wetu président de la République man lay doon jeunesse bi lay doon parce que wane nañ ko au mois de mars. léegi par rapport à grand à Dakar tu l'as dit am na Diouf Sarr le maire Diouf Sarr qui est le coordonnateur des cadres. aussi mm. nekk maire commune am aussi di jàmbaar. il y a le ministre Amadou boo xam ne depuis 2016 lorsqu'il est arrivé au Parcelles Assainies ñëpp amoon nañ man je dis la vérité en 2017 lorsque le président a choisi Amadou comme tête de liste départementale ñu bëri amoon nañ kii tàngee parce que musuñu ko gis mu illustré aussi politique moi je dis la vérité mais j'étais ébahi et étonné par le leadership par son leadership mu tax mu porté liste bi on a gagné à Dakar avec brio on a repris les sept députés de Taxawu Ndakaaru loolu c'était très stratégique pour la force de Benno bok Yaakaar à l'Assemblée nationale parce que boo xoolee looloo gën a wàññi doole Khalifa Sall peut ay ay ay ay ay ay ces forces politiques ay ay ay Barthélémy ay Bamba Fall ay ñoom Banda ñoom ñëpp ñu mu yaakaaroon dans le département ces ténors ñëpp da leen dugaloon liste départementale peut jàppoon na ne naturellement moom day gagné donc loolu aussi ça fut en tout cas un très grand sacre. Mm-hmm. lors lors de de de du parrainage le président de la République a repris cet même homme. jiital ko au niveau de Dakar mais aussi jiital ko au niveau de la région de Dakar mu liggéey si liggéey bu rafet tant plus que moi je faisais partie des vingt jeunes que le président avait coopté pour liggéey le parrainage tous les neuf départements de la Casamance ñun ñii ni ñoo leen ñoo formé gars yi préparé leen si li su si li su parrainage donc xam nañu ban liggéey la si def présidentiel aussi le président jëlaat Amadou Ba jiital ko au niveau de la région donc pour logique politique pour logique politique bien pour logique politique gisuma keneen ku président mën a jëlaat ci ci local pour jiite ville bi ku dul kooku parce que moom la jël ñetti yoon. te gagné na ñetti yoon te hmm. donc même que ça soit en arithmétique que ça soit en football que ça soit en tout ki nga jël ñetti yoon mu gagné ñetti yoon jàpp naa ne doo ko changé te lu ma gëm mooy encore une fois ñoom yëpp c'est de bon profil ay leader lañu ay responsable lañu mais jàpp naa ne le leadership de Amadou Ba. ci cap naa ne c'est le meilleur profil pour que président jiital ko parce que yu mu jot a jiite yëpp gagné nañu à Dakar donc on n'a pas besoin de changer. merci beaucoup que les autres le ministre Diouf Sarr ñoom Mame Mbaye ñun ñëpp ñëw bootu gannaawam ànd comme ni ñu ko yàgg defee ñu gagné jël la ville de Dakar jox ko le président de la République te xam naa ne incha allah on le réussira au sommet. en tout cas bu ko deful moom il sera le seul président la ville de Dakar Ousmane en dernière question yow nga nekk doomu Casamance tamit dans ah, Gagnyama Géejawaay ngay Grand Yoff ngay bakkoo mais xam nañ ne am nga ay racines foofu ci Casamance ngay doomu Joola sa yaay defe naa Joola la euh, nga dëkk tamit dans le cœur de la Casamance keroog gis nañu ñaari doomu Casamance jote ba deret di ci tuuru ban jàngat nga ci am en tant que d'abord jeune Casamançais. waaw euh, comme ni nga ko waxee euh, c'est toujours une fierté de. de de de reconnaître que je suis de la Casamance parce que nit moom dara si àdduna bu mu la jaral nga renier li nga doon. Mm-hmm. ay doomu Casamance lañu te gëm nañ ko te bëgg nañ ko te dañ koy sagoo di ko ndamoo donc euh, ñuy dëkk Grand Yoff aussi du duñu ay ay ay ay ay ay loca Grand Yoff lañ dëkk. duñ fa ay locataire aussi suñuy maam dëkk fa suñuy njaboot dëkk fa mais aussi ku nekk am na peut-être say origine donc aussi ba pare aussi ma am si aussi un œil proche di xool di observer aussi à travers le parti parce que tey vu tey ma position au niveau des jeunes donc fu nekk aussi am na fa ay aussi mm. te aussi ñu xam nañu lu xew si gox bu ne mm-hmm. mais tey lu ma bëgg a wax rek mooy euh, man euh, je vais parler directement au Casacé particulièrement les jeunes de la Casamance tey ñun ñëpp xam nañu ce que la Casamance durant presque vingt ans deux décennies. trente ans trente ans. depuis 1982 Casamance depuis 82. Mhm. ba tey Casamance dund lu métti. tey c' à travers le président de la République Macky Sall. si on doit se dire la vérité que tey la ñu constaté une accalmie au niveau de la Casamance c' ça la réalité. c' est ça la réalité parce que ñun dañuy dem Casamance fréquemment foo lañu dëkk dañ fay dem fréquemment avant 2012 ñëpp xam nañ ne il y avait pas cette a là tey ñëpp gis nañu tey les projets phares les investissements colossaux les infrastructures que le président de la République a fait pour la Casamance. Donc, on peut ne pas être de la Casamance, mais aimer la Casamance. Mhm. Donc, man, gëm naa ne le président de la République Macky Sall ku bëgg Casamance la parce que lu mu fa def la. Mhm. deuxièmement mooy politique ñu ñëpp ay sénégalais lañ ku nekk am na droit taxaw ne man damay politique man leader laa damay créer parti am naa ambition mais ambition waruta tax ngay jëndee. say ambition sa bëgg-bëgg sa askan wala sa dëkk bu doon dëggantaan gëm nga yow askan bi ak dëkk bi nga wax mm-hmm. Ousmane Sonko je le cite nommément il doit arrêter na bàyyi arrêter di mbubboo Casamance la casaman a toujours eu des leaders politiques béti mais gisuñu benn c'est-à-dire cette nouvelle forme de faire la politique à travers ah, cette nouvelle forme cette nouvelle forme du ma ne day bubboo Casamance mais ñëpp gis nañu nu muy def mm. fàttaliwuma fu ñu ma nekk Ousmane Sonko en 15 ans d'impôts et domaines il a fait ça pour la Casamance il a fait ça pour HLM Néma ou bien il a fait ça pour Bessir je félicite d'abord euh, d'ailleurs Doudouka le DG Doudouka boo xam ne ne barki démb gis na à travers les images que il a rénové la mosquée de Bessir defaraat ko peinture ko changé ko c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend des leaders politiques c'est-à-dire pas le verbiage mais l'utilité qu'on soit utile proche de la population na manipulation bi que lu ñu gis mooy parce que tey Sénégal kenn du taxaw ne waroo dem fii waroo dem fii mais il y a l'élégance il y l'aspect élégant yoo xam ne dañ ko war a dugal ci politique. Mm-hmm. tey boo waree bëgg a dem Ziguinchor ñëpp xam nañu Ziguinchor c'est une grande ville mais yoon yoon une route mais yoon bu xat la. Mm-hmm. boo bëggee dem ba buntu këru jàmbur koo xam ne c'est un adversaire comme Doudou Ka et puis aussi ñëpp xam nañu aussi contexte bu ñu nekk nous sommes dans un contexte préélectoral. Mm-hmm. et puis yàlla def kooku aussi nekk. période boobu nekk Ziguinchor kon naturellement ñëpp xam nañ ne un leader politique boo nekkee sa gox say militants dañuy toog sa kër. dañuy nekk sa kër kon boo ñëwee bëgg a def réunion en face kër kooku jàpp naa ne ak nu mu fa ñëwee jàpp naa ne loolu provocation la ba pare ñëpp gis nañu manipulation bu si topp Sonko doit arrêter. am na ay ambition mais ay ambition bu mu ko gënal jàmmu Casamance ay ambition bu mu ko gënal Casamance bu doon dëggantaan gëm na Casamance di félicité waat Doudou Ka ci taxawaay bi. di féliciter aussi l'ensemble des responsables de de de de de la paire de de de Ziguinchor te ma gëm aujourd'hui mairie bi wane nañ ne les Ziguinchorois son prêts parce que aussi les gens savent faire la différence aujourd'hui le président de la République à travers les investissements yu mu nekk di def Ziguinchor xam nañu le président bëgg na Ziguinchor bëgg na Casamance et que aussi il a des relais yoo xamante ne ñu mel ni Doudou Ka ak ñeneen mën nañu porter ce projet là pour mën a changer xaru kanamu Ziguinchor. Mmh. am na solo Ousmane lan ngay tëjee. waaw lu may tëjee mooy euh, di la remercier euh, grand frère Kandé si opportunité bi ma may ma wax ak euh, sénégalais yi ma wax ak jeunesse bi wax ak sama parti wax ak moom président de la République Macky mu bay xel en tout cas ñëpp xam nañu man gëm naa sa clairvoyance et sa magnanimité politique xam na gëm naa ne président néew ma du juum si politique mais lu muy juum néew na donc Grand Yoff il fera le bon ñu xool à travers les responsables de l'APR kenn ku ñu tabb ñun ñëpp ñu topp ci ànd avec les alliés dem jëli la mairie parce que Grand Yoff waay taay nañu Grand Yoff waay sonn nañu Grand Yoff waay tey lu ñuy xaar rek mooy ñun ñu teg kenn ñu jox ñu mairie bi parce que gisuñu seen bopp ci mairie Grand Yoff de 96 à aujourd'hui à mm. travers Khalifa Sall et ses poulains. j'espère seront investis dans les jeunes seront investis. à travers les partis mhm. que compose la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que aussi ñëpp xam nañ ne politique ndaw moo koy def donc loolu naturellement euh, ñuy si ñu ngi siy taxaw te incha allahu rabi dinañu bokk si ñuy porter en tout cas ce projet commun pour le changement radical à Grand Yoff. merci beaucoup Ousmane Ndiaye lañ doon dalal fii ci senego point com mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen entretien fii ci senego point com jërë ngeen jëf.